Conseil sénégalais des chargeurs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 dëkk nañ fa lu toll ci ñeen fukki at ay ancien militaire laña jàppante bi tàngoon na démb xeer yi maanaam doon na jolli grenade lacrymogène yi am na ñu bari ñoo xamante ni teg nañu leen loxo am na tamit ñu bari ñoo xam ne am nañu si ay gaañu gaañoo démb nag waa Descos maanaam sii di matukaay yu mat sëkk la ñu jël ngir nag génne njaboot gu nga xam ne maanaam ñoo fa dëkk lank kandaare bañ a génn yéen kaay gi nee na ancien militaire yi nga xam ne ñoo dëkk cité terme sud démb gendarme yi dañu leen doon mboko mboko ngir na génn leen fa Sénélec sax dañoo mujjee coupé li nga xam ne maanaam mooy courant bi démb bëccëg la boo xamante ni bëccëg bu tàng jër la yéen a kaay gi de la turbine nee na nag ñi nga xamante ni ñooy ancien militaire yi am na si ñoo xam ne am nañu ay gaañu-gaañu waaye nag ñoom wax nañ ñu leera ñoom ancien militaire yi nee nañ daal en tout cas na si seen bakkan des waaye duñu ko nangu tey duñu nangu ëllëg ku leen toroxal ñenn si ñoom nee nañu bis dina ñëw yàlla dina daal di atte yéen a kaay gi di l'info ñu xëy fekk fa Maysa Babu deb économiste daat nay wax ne président Macky Sall taxawaay bi nga xam ne moom la wax ne moom lay am ngir yëkkatiwaat sunu koomu réew réew wax ji rek moo neex waaye nag loo xam ne defoo ko ci lu toll si juróom-ñetti at nan nga ko mën a defee lu toll si ñaari at loolee ci boppam yéenuwul maanaam bu ñu waxantee dëgg sunu koomu réew mi maanaam moo feebar ba laate gaaf yéen kaay gi de la témoin ñu xëy fekk fa maître Assane Diomba Ndiaye moom nag daat nay ñaawlu bu baax a baax magistrat bi di Souleymane ko maanaam ñool ñool yi nga xamante ni moom la ñu koy andil jamono ji maanaam di ko woolu ak di ko déglu Seydi Gassama moom nag daat nay wax ne Souleymane Teliko moom boppam gi nga xamante ni moom la moom boppam maanaam daal indépendance gi nekk ci moom loolee moo metti kilifa yi yéen a kaay gi di Sud Quotidien lu jëm ci wàllum yorin wu baax loole nag daat nay tax organe de contrôle yi ñoom nag ñoo ngi wut jamono ji ay yeesal maanaam ay réforme yéen a kaay gi di 24 heures ak L'As ak Vox Populi xëy di ñu fàttali naa ñu président Macky Sall ci conseil présidentiel bi nga xam ne moom la doon amal sa jëm ñaajo dafa yëkkati ay kàddu ne li nga xam ne def na ko ci wàllum inondation si Sénégal maanaam amul kenn koo xamante ni mas nga koo def ci réew mi moom Macky Sall sa jëm ñaajo waxoon na ne amul benn tojaange woo xamante ni def nañ ko ci ni nga xam ne moom lañ yore wàllum inondation si Sénégal moom Macky waxoon na sax ne képp koo xamante ni daal yaa ngi ci ko jigi bëgg a ak moom pare na ngir wuy si la yéen a kaay gi nee na Ousmane Sonko daan nay défier Macky Sall Ousmane Sonko nee na pare na ngir nag débattre ak Macky Sall Ousmane Sonko njiitul Pastef nee na Macky Sall su nangoo ñëw ñu débattre wala mu débattre ak opposition bi loole nag maanaam Sénégal moo si gagné ci lu jëm ci wàllum démocratie ak wàllum transparence enquête yéen a kaay mu ñu xamal en tout cas Ousmane Sonko jël na avance Macky Sall baa nag Macky Sall du delloo avance ndax ci fàttali ki nga xam ne mooy Lansana Gagny Sakho bi mu fi waxee ne pare na ngir débattre ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko jël avance am Lansana Gagny Sakho dafa daal di deltu ginnaaw Macky Sall mi nga xam ne kay nee na pare na ngir débattre Ousmane Sonko nee na ku ñëwal en tout cas débat boobee lu ñu war a amal réew mi yéen kaay gi de la témoin xëy di ñu xamal lan ñu Ousmane Sonko na Mansour Faye ndax moo waxoon ne Ousmane Sonko dafa ñëwoon bureau ma ngir nag moom Mansour Faye mu dox médiation digganteem ak Macky Sall ngir mu am ab audience loole nag la Ousmane Sonko xëy di tontu nee na ki dàq kàcc ba Sénégal di Sénégal ba léegi maanaam Mansour fay la Ousmane Sonko yàq na musiba ak mbelengaan Mansour Faye te nag li nga xam ne moom lay sàkku maanaam mooy Mansour Faye andi ci ay firnde Ousmane Sonko nee na nag 69 milliards yi nga xam ne jox nañ ko Mansour Faye ngir mu jëndoon ci ak dund ñenn ñi jàpp ne daf saa def ay tojaange ba jot ko porte plainte mu lànk na da wuy ju loole la bëgg askanu Sénégal fàtte ko waaye nag ko fàtte benn yoona Vox Populi Ousmane Sonko ne wax ji dal gudd gàtt Mansour Faye day kàcc li mu wax dara du ci dëgg yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na Aïda Diallo jamono ji dañu ko toroxal bam ne tott sa Touba laas yéen kaay Aly Ngouille Ndiaye nee na pare na ngir teg ay daan mboolem policier yi nga xam ne maanaam ñoo def ay ñawteef caméra wu mën bii di Adja Ndiaye ñi nga xamante ni nag ñooy ay policier yi ñu njort ne def nañ ñawteef googe déglu nañ leen Adja Ndiaye ci boppam ci lalu hôpitalam moom tim daat nañu koy déglu yéen gi di source a dikk ci mbir mu doy waar nee na kero bi nga xam ne njiitu mi di Macky Sall demoon na Touba ngir amal fa ab ziar benn Ndiaye la ñu jàpp mu yoroon arme bu garaaw a garaaw maanaam pistolet automatique la waa ji yoroon raaxaloo ci nit ñi jamono ji defeere nañ ko Jurbel la njiitu réew mi di Macky Sall daat nay dalal minibus yi nga xamante ni ñooy wuutu set place ci Sénégal yéene kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa ministre Zahra Iyane Thiam mi ñu dénk wàllu microfinance économie sociale ak solidaire wax na lu bari ci réew mi quotidien wax na ci relance économique bi ak ni nga xam ne moom lañ ci war a dugalee askan wi joxe exemple lu jëm ci wàllum agriculture nee na ku ko wax ci réew mi mënoo sa ñàkk dugal baykat yi yi wax na tamit ci rôle bi nga xam ne ministère microfinance dina ko doxal ci relance économique bi wax na institution microfinance yi nga xam ne danañu dugal lu toll ci quatre cent vingt milliards at mu jot l'observateur Diop Isaac moom jamono ji ma ngi defante ak soxnaam sii di Aïssatou Seydi nee na Aïssatou Seydi dafa bàyyi ba mu dugg ci kaso bi mu bëgg a profité bëgg manjaay cekke bëgg am xaalis ci sama kaw loole nag du ma ko nangu yéen a kaay gi de Stades nee na Aliou tey ji nag lay fësal liste nag gaynde yi nga xam ne ñoo war a jonoo ak Maroc ak Mauritanie ci match xaritoo yi nga xam ne